Xonjo moom damay am satisfaction euh, wax ci parce que alerte lañ jotoon euh, ci li nga xamné mom moy ICS dafa doon déposer wala dafa doon tuur euh, ben xétu ndox boo xam ne dañu yaakaar xétu xeetu ndox moomu dafa am ay tooke bi ñu demee waxtaan ak ICS nee ko ICS nee ñu ndox moomu amul ben tooke ñu ne ko nag il faut impérativement ngeen def jox ñu ay tegtal yu woné ni. Euh, ndox momu amul toki nenañ ma paré nañu analyse bi mais nak yemuñu foofu parce que quel que soit ndox mi euh, li ci nek euh, comme population yi nekkuñu à l'aise par rapport ak la cohabitation ak émissaire bi ñun liñu jëlun comme décision moy délocaliser émissaire bi yobbu ko fo xamné amul presque ñu fa dëkk fu sori fo xamné amul presque dëkkuwaay d'accord nañ ci ak ICS ICS en rapport ak ñi nga xamné ñom ñoy autorité territoriale yi fa euh évaluer nañu impense yi mooy fi nga xam ne yoon bi fu muy jaar pour dabi fi nga xam ne foofu la war a poser émissaire bu bees bi loolu nag bi ñu ko defee ba pare euh, calculer nañu li nga xam ne ñoom la ñu war a dédommager yi nga xam ne yoon bi nga xam ne moom lay camion ICS yi di jaar pour yóbbu ci émissaire bu bees bi calculer nañu impense yooyu na ñaata la war a jar la ñu war a dédommager ñi nga xam ne ñoom ñoo moom tool yi mais nag dafa daje période bi nga xam ne mooy période nawet euh, euh, ñëpp war a bay xam nga nag mënuñu ci euh, période bi nga xam ne ñu toll nii ñëw dagg tali jaarale ko ci ay tool euh, dindi li nga xam ne moom lañ fa jiwoon euh, loolu am na leen lu ko gën moo tax ñu war a taaxirlu ba ñi nga xam ne bi ñu paree si mbay mi nga xam ne def nañ ko ba génnee seen i li nga xam ne mooy deqi bu ñu dexee seen i seen i seen i ji bi nga xam ne moom lañ jiwoon ba pare incha allah. dans les mois à venir dinañu xàll yoon bi rejoindre émissaire bu bees bi xonjoo euh, euh, taxaliku ba abadan euh, li nga xam ne moom mooy émissaire bi nga xam ne moom moo doon indi ndox te ñu tuumal ni ndox moom dafa am tooke